wane na naqaram mooy Mary Teuw Niane mi nga xam ne moom lañ dénkoon ay jamono njàng mu kawe mi yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Mansour Faye moom Mary taw ñaan nee na jamono ji nga xam ne moom la ñu toll ci atum 2020 bi kan moo ñemee xalaat benn seconde rek jël ay yoon wala ay xàll wala ay bayal di ko tuddee njiitum réew moo xam ne maanaam wàccegul la Mansour Faye su bëggee tuddee Macky Sall ay yoon wala ay xàll wala ay bayal day bàyyi ba mu joxe réew mi su ko defee ñu natt ko évaluer ko su dee def na loo xamante ni moom la ñu doon xaar ci moom bu boobaa mën nañu tuddee ay ay yoon wala ay xàll wala ay bayaala mari taw ñaan dafa jàppee Mansour fay nit ko waaye di nit koo xamante ni xelum xale la yoro borom xel mu làmbera ba tey ci biir journal bi di réew mi ko dijee ñu fekk fa Assane Samba nee na nag jamono ji Macky Sall ci am mission la nekk ana lan moo tax jamono ji bëri na fu ñuy xaar Macky Sall ñëwagu fa ñu bëgg jël ay yoon ak i xàll di ko ko tuddee te loole nag auto glorification lay tudd te bu boobaa nag teel na loola ndax Sénégal yi kontaan ci président Macky Sall naam nag turi colon yi xamante ni tuddee nañ ko ay xàll ki jar nañu ko soppar ñi loolee nag lu baax la waaye nag jël Macky Sall moo xamante ni en activité la nekk li ñuy xaar ci moom lu baree bari gisaguñ ko ñu bëgg ko fee tudde ay yoon ki xàll loolee c'est pas normal yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Alioune Tine ci loi d'habilitation bii nga xam ne président Macky Sall bëgg na ñu daal di ko koy voté ngir mu mën a teg ab état d'urgence wala état de siège Alioune Tine moom àndu ci benn yoon maa ngi alerte nag nee na lii dafa yàq sunu démocratie daf koy deltuloo ginnaaw te nag état de droit nanguwu ko Dakar Times na bu ñu waxantee dëgg président Macky Sall moo bëgg a confisquer li nga xam ne mooy suñu liberté yi maanaam suñu dem geeg suñu dikk geeg suñu liberté geeg indépendance gi loolu la président Macky Sall bëgg a fuqar ñi te loolee mënuñu ko ko maye yéen kaay gi di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa Saliou Keita mi nga xam ne mooy directeur général bu CICES wax na ci jàngoroy coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne ameel na ko CICES ndax lu toll ci huit cent millions yoo xam ne CICES ñàkk ko daan nay wax ne toll ci cent la woon dagg nañu ko ba mu toll ci trente hectares waaye nag njiitu réew mi na diabète yi covid 19 beeg jafe-jafe yi nga xam ne andil na ko réewum Sénégal lu toll ci 24 heures am na juróom benn nit ñoo xam ne faatu nañu ci jamono ji am na lu toll ci fanweer yoo xam ne ñoo ngi Sowétas yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na suñu waxante dëgg Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye ñoom respecté wu benn yoon arrêté bi nga xam ne ministre de l'intérieur génn nañu ko ndax ni ki démb bi ñu inauguré autopont bu Yoff Mansour Faye ak Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllum wér yaram gi mbooloo mu baree baree bari la ñu dajale Yoff maanaam dañu doon rassemblé wu te loolee dañu koy tere kon Abdoulaye Diouf Sarr moo njëkk a jalgati yëf yi yëf yi nekk ci yéenekaay gi di la témoin mooy ñi nga xam ne ñooy waa police daan nañu yëkkati yat wi nee nañu képp koo xamante ni respecté woo mesure barrière yi ci feet Noël yi ak feet fin d'année yi danañu ko jëflante ak yow yéenekaay gi di la Soleil ak Rewmi Quotidien acteurs culturels yi jamono ji ñoom li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu doxal seeni activité niki démb amuloon nañu toogaanu ñaxto yéenekaay gi di Vox Populi nee am na benn étude boo xamante ni bureau de prospective économique daan na koy def ci lu jëm ci wàllum vaccin bi nga xam ne wax nañ ne war naa ñëw ci Sénégal te muy faj coronavirus askanu Sénégal bi ñu leen laajee ñu ëpp ci askan wi bëgguñu vaccin boobee te nee nañu bu vaccin bi ñëwee duñu ko laal duñu ko jege yéen a kaay gii de la Soleil ci lu jëm ci conseil des bi ñu amal niki démb njiitu mi di président Macky Sall wax na ci site internet yi nga xam ne lu leen neex la ñuy def nee nañu xoolaat ko sensibiliser presse en ligne bi yéen a kaay gii ñu fekk fa Thierno Alassane Sall yàq na musiba ak mbelengaan Idrissa Seck moom xam ne bu